Sud FM xibaar yi. Euh, mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci Sud FM seen rajo 98.5 kàddu gi di bàyyi ko ci ndakaaru ñu dikk ak yéen ci xibaar yi fi ruus ci tàkkusaan gi. door koog yéen ci bopp xabaar yi ak Pape Abdoulaye Dieye mi féete ci wàllu xarale gi ñi nga xame ne si ñoo nekkoon ci ancienne piste day dañ leen a bett daal leen fay yëkkati garage ak atelier yi nga xamee ne si ñoom ñoo fa nekkoon mécanicien yooyu nag di ñaawlu bu baax a baax bett bi nga xam ne si moom lañ leen bett waaye itam doole yi nga xam ne si moom lañ jëfandikoo ngir daal leen fay jëlee euh, ñoom ci seen bopp kat nee nañ lii daanaka njeexital la rek moo di nit ñi di wéy di dem ci mbëkk mi ak yokk li nga xam ne si moo di ak caay-caayeku boy ci réew mi ci kanamee yëkkati ñu indi ci ay leeral campagne bu parrainage bi nga xam ne si moom la ñuy euh, tàmbalee élection présidentielle bu 25 février 2024 lu mat téeméeri euh, candidat daanaka waa direction générale des élections ñoom lañu ñu daal di nangul lenn li seen i parrainage yooyu nag bañ ko bañal ki nga xam ne si moo nekk Ousmane Sonko fi mu ne nag ci biir Sénégal li ñu fi wax moo di mbirum éligibilité koo xam ne war ngaa mën a bokk ak koo xam ne war nga mën a bokk ndaxte dafa nekk question boo ne nee nañ conseil constitutionnel moom moom rek moo mën Alioune ay kàddoom nekk yu leer nañ nee na administration daal dafa war a tëddee njaaxaanaay waaye warul def rekk lépp loo xam ne si moom moo ko neex ñu seetlu ay yéexitam ci liggéey bi nga xamee ne si kat ca conseil des ministres nekkoon na ay engagement yoo xamee ne si jëloon nañ ko ca Sédhiou foofu nag ñi nga xam ne ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar ñooy ñaan ñi nga xamee ne si kat moo nekk nguuru Sénégal ak président Macky Sall ñu baral liggéey boobu ci lu mu gën a gaawee avenue Général de Gaulle ba nekk ca Ndar léegi ñu dippee ko président Macky Sall décision boobu day moom la conseil municipal bi nekk ci Ndar daal di jël alliance des organisations de jeunes yi nga xam ne si ñoo nekk ci réew mi di ngir xeex lépp loo xam ne si nekk na ax ak yelleefu xaleel yu jigéen yi ñoom day ñi ngi waajal bu baax a baax ndaje mi nga xamee ne si dafa war a am ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk jànq ji ak njegamaar yi euh, waaye nag ñu fexe ba tam seen àq ak seen yelleef kenn bañ cee fekk dara euh, forum mondial boobu nga xam ne si mi ngi am fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru octobre ci New York tax na ay responsable am daal di jóg ci samedi bi ca Ndar yëkkati seen kàddu ngir yëglu ca teel ca Jurbel conseil municipal bi mi ngi fexe nu muy def ba ibbi tey jàng tey nekk loo xamee ne si lu sax lay doon bu ci kanamee tuuti ñu déglu ci Adama Ndiaye fexe tam ba yoon saxaar gi nekkaat loo xamee ne si lu mucc ayib loolu day daanaka moom moo nekk te ñaareelu conférence publique bi nga xam ne si amal nañ ko ci samedi bi ci Thiès euh, ci cadre centenaire bu Prytanée militaire bi nga xam ne si moom moo nekk ca Saint-Louis euh, bu ci kanamee tuuti ñu indi ci daanaka ay leeral euh, xibaar yi dañ ko boole ak li nga xam ne si moom moo nekk xibaaru tàggat yaram waaye tam ak xibaaru bitim réew jërëjëf Papa Abdoulaye Dieye mi féete woon ci wàllu xarale gi mbokk yi looloy bopp xabaar yi nees kii si ñu indi ci ay leeral. jaageen jëf ci kolore ngeen fas ak Sud FM seen rajo 98 point 5 kàddu gi di bàyyi ko ci ndakaaru dañuy xibaar tàmbalee xibaar yi fi nga xam ne moo nekk ancienne piste bi nekk fii rek euh, ci diggante Mermoz ak fi nga xam ne si moom moo nekk Wakaam foofu day ñi nga xam ne si ñoo fa nekkoon yore ay garage ak i atelier tey dañoo xëy daal leen fay jëlee jëlee boo xamee ne si nag ñoom nee nañ mbettaange la lool ci ñoom te ñoom ñu di ko naqarlu ñoom ci seen bopp it nee nañ am na leneen loo xamee si moom la ñuy jooytu moo di doole ji nga xam ne si moom lañ leen jaay ba jëlee leen fa nee nañ lu mel nii nag daanaka ñaar rek lay jur cim réew ne si ñoo nekk ci mbëkk mbëkk mi day gën a yokk waaye nag ñi nga xam ne siitam ñoo nekk ci wàllu délinquance ak càmbaa booy day gën a yokk ci fi nga xam ne moom moo nekk réew mi Amadou Moustapha Dieng fekke na bañ leen fay jële ñu déglu ko seen place dañ ko yàq di pare de. léegi nag lépp dañ yàq doole rek jaay doole rek def lu leen neex. ay mécaniciens seen kanam ñu jaxasoo mel ni ay oto yu paan la ñu gis fii ci seen piste bi li ko waral moo di dañoo xëy rek daal leen dégër piir fañ doon liggéey kenn du fa dugg tey ndax police dem ci guddi ba léegi moo fa dugg ànd ak des descos di démolir place ya te lii moom dooy na waar daal. Mhm. ñun bañu ñu génn de. man miy wax ak yow kon piste bi moo tax dérapé wu ma. kon amoon nañ yeneen xale yoo xamante ne. dañuy dem ci géej gi dem wala ñuy dem bandit def def banditisme loolu la mais mënoon nañ ñëw sax négocier gars yi sax au moins mais jaay doole ñun dañoo bañ mooy paa yi nga xamante ne jeexal nañ seen life yëpp ñu pasar pasare seen life ñëw bëgg a yàqal booy yi nii dëkk bi seetal li ma lay wax nii rek moom du yàgg yàgg yàgg nga gis bi gaan mooy loolu parce que leer ne ay xale yu ndaw nga jël leen teg leen si aksi di leen liggéeyal di leen jàngal métier ñun li ñuy def ñun amul kenn ku ko fi def mais kooku noonu war nga ko mën a utal place boo xamante ne xam nga war na fa mën a toog au lu ni mel nag bett leen loolu ndax ñoom amoon nañu ay sommation ñu leen joxoon waaye app ba yegg seegul waaw parce que dafa benn délai bi ñu defoon bi fekkoon ne préfet bi mu kii woon mais itam xam nga nit ki su fekkee dafay nekk fenn di liggéey même soo ko fa bëggee jëlee nga teg ko si condition yoo xam ne même fi nga koy jëlee sax di nga ko teg foo xamante ne nii au moins sax xam nga dina dalal xelam mais tey fii ñaata oto ñoo nekk ci biir oto yooyu soo ko génnee foo koy taxawal fan nga koy yóbbu mécanicien yi la ñuy gis fii lee bëgguñu sax ku leen wax waxu jam ñaajoo ndax ñu ngi xam le ne mais jam ñaajoo grand tey yow yow boo yoroon oto tey paan ndax di ñu fekk jam ñaaj dépanné jam ñaajoo arrangé kenn yow nañu waxee dëgg mais yow fekk yoroon oto doo paan ab benn courant mu wala yow sax ngay ñay ñay fii jam ñaan jël la gasoil bu du jeex wala ngay lakk essence bu du jeex li ëpp ci ñoom di ay ndaw di xam ne ne yàq bi ñu yàq lépp lu jëm ci wàllu limu candidat Barça wala Barsàq yi wala ñu dem di lu ni mel ñu jeunes yi essence yi yàlla xam ne bi fi ku gëmul sa bopp dëgg dëgg dëgg da def loo xam ne si seen noonu mais dañoo sonn Macky Sall jàppale mu xam nañ ay ndaw la nañu liggéey piste bi moo tax dérapé wu amoon nañ yeneen xale yoo xamante ne dañuy dem ci géej gi dem wala ñuy dem bandit def def banditisme loolu la mais mënoon nañ ñëw sax négocier gars yi sax au moins mais jaay doole lii banditisme rek la indi si dëkk bi seetal li ma lay wax nii rek moom du yàgg yàgg yàgg nga gis dëkk bi gaan moo lool jamono jilee mécanicien yi lee xamantuñu fu ñu jëm seeni xol tànk jër di baax di ngeer ni ay radiateur oto yu chauffé ci tàngoor bi Amadou Moustapha Dieng jërëjëf ñu dem ci campagne bi nga xamee ne si kër moom la ñuy dooree parrainage yi ngir waajal élection présidentielle bu 25 février 2024 lu mat daanaka fukki candidat yi daanaka mën nañ ni euh, jot nañu li nekk seeni fiche ci direction générale des élections waaye parrainage boobu day dañ ko gàntalal ki nga xam ne moom moo nekk Ousmane Sonko looloo tax nag kii di Alioune Tine daal ni Sénégal nag toll nañ foo xamee ne si euh, dañuy problème mu éligibilité day daal di posé wu fait dañ defe ni conseil constitutionnel dong moom moo yelloo yëy yàbbi ci Alioune nag ay kàddoom dafa leer moom ci boppam nee na administration day njaaxaanaay la war a tëddee ndax bu tëddee njaaxaanaay mooy tox xel yi dal su ko defee ñu am élection yoo xamee ne si day am ci jàmm am ci ak jubu am ci ak déggoo loolu tax nag muy euh, lancer benn appel ki nga xam ne moom moo nekk fondateur Africa Jom Center di lancer appel jëmale ko ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk autorité yi bu baax a baax Alioune moo nekkoon ganuk Alaaji Baye Umar Gueye ci seen émission bi nga xam ne moom moo nekk objection doon am ci dimanche bi ab yeexit ñu seetlu ko ci engagement yi nga xamee ne si jëlal nañ ko ci conseil des ministres décentralisé ba am ci Sédhiou liggéey bi daal mi ngi dox dox boo xam ne si mën nañ ko gam-gam léegi bu kàkkataar looloo tax nag militant yi bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar ak parti yi nga xam ne si ñoo ànd ak ñoom ci mouvance présidentielle bi yëkkati seen kàddu bëgg njiitum réew mi daal leen di dégg su ko defee kat liggéey yooyu ñu baral ko ci ni mu gën a gaawee ñoom ci seen bopp nag nee nañ ànd nañ bu baax a baax ci tànn bi nga xam ne si président Macky Sall moom la def jëmale ko ci Amadou Amadou Ba te fas yéene nañu jàppale candidature boobu ngir présidentielle bu février 2024 ñu am ndam waaye nag liggéey boobu day bu ñu sañoon ñu baral leen ko ndaxte dina nekk li leen di dimbale Moussa Dramé. ci kilifte Moussa Bokoum nekk njiital conseil départemental bu Goudomp ay militants yi bokk ci alliance pour la république ñoo xam ne dañ leen sopp di ay sympathisants parti yoo xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak it grande mouvance présidentielle dañoo xam ne ne it ànd nañ ak it tànneef xam ne njiiti réew mi Macky Sall def na ko it ci élément Ba falum njiitu réew bi ñu dégmal di février dañ ci teewlu Moussa Bokoum nekk njiital conseil départemental bu Goudomp. maire yaa ngi fi élus nationaux yaa ngi fi responsable politique yaa ngi fi mouvement politique allié sympathisant et militant ñëpp ngi fi. ñun majorité présidentielle lañ bokk. ñun ñoo joxoon carte blanche président la république. ñu ne ko koo tànn rek ñu topp ci ginnaawam. tànn na Amadou Ba ànd nañ ak moom te incha allah ko jàppale dañ ak it conseil présidentiel te it ci jotaay jooju la xam le ne it am na liggéey boo xam ne war nañ koo door fii ci diwaanu Sédhiou rawat na ci département Goudomp ñoo xam ne ñoo ci fekk baax rawat na kilifay politique yi sopp nañ lool njiitu mi indi ci saafara mu gën a gaaw ngir mu gën leen yombal seeni liggéey ki wax li ni mel di Moussa Bokum ci tur ñu mu àndal. jotoon na aussi ñu toog wax tuuti si suñu problème mooy président bu mu fi ñëwee dañu diggoon lu bëri et ngi xaar bu baax lampadaire yi ba léegi ñëwagul lu am solo la ak électrification rurale donc suñu nguur gi góorgóorlu tuuti jàppale ñu parce que dafa am fu ñu fu a yegg mooy élection yi bu ñu amee début de solution yaakaar naa allah dañuy jàppale bu baax si élection yi ñuy jëm di fàttali ne rek département Goudomp mu ngi féetewu ci bët Saloum diwaanu Sédhiou ci frontière ak Guinée Bissau sonn lool ci ñàkkum kaarange boo xam ne moo ci yàgg amee diwaanu Casamance loolu yëpp di wund na tey jii buñ ci amee yenn juntukaay bi ci mel ni pont ci temento it danay tax gox boobu lay mën a fériku it te lépp loo xam ne si warees na ko mën a jëmale ci kanam ñu gën ko jàppandaal ki ci doon jokkook yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud Moussa Dramé dañuy jogee ci bëj saalum réew mi dem ci bëj gànnaar avenue Général de Gaulle ba nga xam ne moo nekkoon ca Ndar day tey ji dindi nañ tur wa dippee ko ki nga xamee ne si moo nekk président Macky Sall muy dogal boo xamee ne si nag waa conseil municipal bu commune bu Saint-Louis ñoo ko nangu vote bi daanaka am na ci ñetteelu session ordinaire bi ñu amal ci samedi bi ca hôtel de ville ba ci juróom-ñett fukki conseillers municipaux yi nga xam ne si ñoom la commune ba am juróom fukki ak juróom ànd nañ ci loolu déglu rek Alioune Badara Diop conseil municipal yore seen kàddu ci micro Yves Tendeng. tey jii conseil municipal bi dañu dajaloo ci seen ñetteelu session ci at bi ñu waroon xool juróom-ñetti poñ benn poñ bi nag porte ci ay mbedd yu nu war tuddee ñeenti mbedd ñu war ci tuddee benn bi son excellence le président Macky Sall benn bi ñu tuddee que sëriñ bu mag bi sëriñ Abba Sall benn bi ñu tuddee que mag bu fi nekkoon Bekkaay Sow ak beneen bi l'ancien conseil municipal ci a beaucoup pour euh, conseil ñu tuddee ko Balla Sidi Gueye dëgg la nag bi du ñëwee posé ko opposition bi nga xam ni minorité lañu ndax ndar mi ngi am quatre-vingts conseil ñoom ñi ñëw tey pour ñu xàmmee leen ñu takk seen ay brassards rouges bindi seen fukk ak juróom lañu donc fukk ak juróom si juróom-ñetti fukk ils sont largement minoritaires mais nag puisque dañu minoritaire xam na ni mënuñu ñu tere ñu def li def si la ñëw bëgg jëng bëgg ay mais may félicité conseillers yi bokk Benno Bokk Yaakaar ak ñi ñu àndal ndax toog nañu garder seen sérénité garder seen dal ba mu mën a liggéey bi door ñu indi seen ay argument ba pare voté tur yooyu yëpp ma wax à l'unanimité te loolu vraiment ñu leen si saluer mais opposition rôle am la nekk comprendre nañ leen ñu ñëw pour wax wante comme ni ma wax rek fukk ak juróom. si juróom ñetti fukk xam nañu il sont largement minoritaires donc yëngal ak jéem a yàq rek moo leen taxoon jóg mais fekk ñu leen comme ni ñu xamee fu nu waa bennoo fu nu nekk dañuy dal dañuy calme sur le plan nag africain et mondial mu nekk un leader incontesté boo xam ni yóbbu na tour Sénégal fu mu warul a egg défendre na turu Sénégal fu sore nit na ku toll noonu waa Ndar cër la ñu mën ko tuddee si incha allah te loolu la def di kontaan nag bi nu voté loolu à lu l'unanimité Sud FM yéen a ngi déglu ba tey xibaar yi ci Sud FM seen rajo 98.5 kàddu gi di bàyyikoo ci ndakaaru euh, kuréel gi nga xam ne si dafa boot ay organisation wu ndaw yu nekk ci Sénégal ñuy xeex àq ak yelleefu xale yu jigéen yi ñoom day dañoo bëgg ñi nga xam ne si kat ñoom ñoo nekk njiiti réew yi ak gouvernement yi daal di xar seen tànk tubéy ba ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk ndaw ñi moo xam jànq jeeg njegemaar yi ñu fexe ba seen dund nekk loo xame ne sii lu mucc ayib lay doon ci réewum Sénégal waaye ci Afrique mondial bi nga xam ne si moom lañ jagleel tranche d'âge boobu muy adolescent yi te muy am fukki fanak benn jàpp fukki fanak ñaar ci octobre euh, ca fi nga xam ne si moo nekk New York responsable ñoom ci seen bopp dañu daje ci samedi bi ca Ndar li ñu bëgg nag moo di xam seeni moroom li nekk seen bëgg-bëgg li nga xamee ne si kat moom moo nekk seen yitte yi nga xam ne ñoom ñoo gën a tar su ko defee ñu dajale ko fenn def nag benn note boo xamee ne si plaidoyer la ñu fas yéene ko jébbal ministère bi nga xam ne si moom la ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ñu déglu ay leerali Khadija Sy nekk directrice exécutive bu AOJS ci micro Yves Tendeng. tey dañoo taxaw ñu ne ñun ay ndaw lañu te ndaw lañu yoo xamante ne dañoo am gëm-gëm bu wér bu wóor boo xamante ne jàpp nañu que ni liy yëggale suñu réew ca kanam ñun dañ ciy bokk. te xam nañ ne que ne ndaw bu nekk li koy gàllankoor bari na mun na dem ci wàllu wér-gu-yaram mun na nekk ndaw bi nga xamante ne jàng na ba am ay diplôme xamul ban yoon lay jaar mun na nekk ndaw mi nga xamante ne mu ngi immigré peut-être amul lu mu jàpp ci biir réew ak yi nga xamante ne boole wuñ leen ci yenn instance inclusion boobu yëpp nag tax ñu ndaw yi ñu ne dinañu taxaw waxtaan ak suñu jiitu réew ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor décision ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñu mën a jàppale pour bu gaaw dinañu def lépp lu ñu mën parce que fu ñu toll di am ay rencontre yoo xamante ne dañ koy am ak chef d'état di leen wax problématique yi nga xamante ne moom la ndaw yi di dund projet bii nii tey ñëw par rapport ak forum boo xamante ne war nañ ko organiser le 11 ak le mu nekk projet boo xamante ne chef d'état yi dañ fay daje xool li nga xamante ne moom mooy problème ci seen ñun nag Sénégal wax dëgg fa yàlla ak yeneen réew bëgg nañoo ñu prioriser bien-être des adolescents maanaam wérgu yaramu ndaw yi lépp loo xamante ne daf leen di ñu nekk ci jàmm donc ci kaw loolu alliance bi en partenariat ak plan international fondation bii di Bodnar financé ko jot nañoo doxal ay activités yoo xamante ne def nañ ko ci neuf régions ci biir Sénégal ci biir activité yooyu permettre nañu ñu am ay yoo xamante ne dinañ ko mën a présenter suñuy gouvernement wax leen que ne fii kat ci biir Sénégal ndaw yi kat ñoo yëkkati seen kàddu ñoom ñoo ne lii seen bëgg-bëgg mooy bu ñu sañoon ñu impliqué leen ci instance de décision yi lii seen bëgg-bëgg mooy ñu wutal leen ay centre conseil ado yoo xamante ne dinañ fa mën a joxe seen xalaat dinañ fa mën a wuti xalaat boo xamante ne dina leen permettre ñu dund dundin bu sell bu jaar yoo ci seen wàllu sexualité. Euh, ba tey ca Njaareem conseil municipal ba fas yéene. fexe ba concept bi ñu naan ubbi tey jàng tey nekk loo xamee ni si lu mën a nekk la looloo tax équipe bi tàmbale yëkkati li nga xam ne moo nekk ay fourniture jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk ndongo yi ba saa bu ñu ubbee rek ñoom ñëpp ñu mën a tàmbalee ci bés bi mën a jàng ñu déglu ci aadama Ndiaye fexe ba concept bii di ubbi tey jàng tey doon lu am ci l'école yi looloo waral équipe municipale bu njaareem daal di joxe ay fourniture scolaire ak intrant ñu xayma ko ci fukki million ak benn yu teg xaaj député maire Malick Fall mooy maire bu jur Diourbel comme day wax ubbi tey jàng tey concept boobu moom moo taxoon ñu joxe ko tey avant ñu ubbi ouverture des classes pour que nit ñi mën ko jëriñoo loolu aussi bu ñu ko defee ba pare dinañ def saupoudrage école yi aussi ñu ñëw quand même école yu bëri mu fonctionné muy nekk 500 rames de papier ak 2500 carré ak 1500 carré couleur ak 1000 double ligne ak 1000 euh, grand format à 500 kaamil ak 200 kaamil wat ak euh, ay encre photocopieuse ren ñu ngi defar actuellement 23 murs de clôture ñu ngi defar ay table banc en même temps aussi ñu ngi préparer formation pour sëriñu daara yi pour 3 millions 350 mille préparer encore formation tamit pour euh, waa comité de gestion yi. fourniture scolaire yooyu ak intrant pédagogique yi dafa bokk ci fukki mesure ak juróom-ñett yi nga xamante ni nguurug Sénégal def ko tënk inspecteur Moussa seen mooy secretaire général bu IEF bu Njaareem. bu ci njëkk mooy ni école yi nañ ko yaxanal defar ko bale ko nettoyer ko ba mu mën a dalal xale yi ba ci topp ñu ne nañu def recrutement yokk jàngalekat waaye ñetteel poñ ba. mooy sax li ñu gën a dajale fii tey mooy fexe ba laata école di ubbi ñu jël fourniture yi ak la ñuy jàppanal école teel leen ko jox mooy wax ne nag commune de Diourbel moom chaque année day illustré wu ci li ndax at mu nekk dina fexe ba laata école di ubbi lépp loo xam ne jumtukaay la ak jàppanal jëm ci école yi dina ko def. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Euh, jërëjëf Adama Ndiaye système bi nga xam ne moo nekk bu raay bi ak transport bi nga xam ne dafa mën a yóbbu mbooloo mu bare lan moo nekk daanaka li nga xam ne si moo nekk enjeu yi ci biir Afrique mooy temu ñaareelu conférence publique bi am ci samedi bi ca Thiès euh, te ñu koy def nag ci feet gi nga xam ne si moom la ñuy def centenaire bu Prytanée militaire ay anciens enfants de troupe yi nga xam ne si kat dañoo bëgg a sukkandiku ci raay bi ngir fexe ba intégration africaine am ñoom ñoo ko doon def le directeur général des grands trains du Sénégal Samba Ndiaye ak expert ferroviaire bi di Oumar Baba Ba ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ci indi ay yoon yu leer yoo xamee ne si buñ ci taxawee day système ferroviaire bi nga xam ne si moom la Afrique bëgg danañ ci yegg Thiès ñu déglu ci Babacar Ndaw ah, bu ñu sukkandikoo si njiitalu grand train du SA Samba Ndiaye la bu ñu bëggee développer continent Afrique. xam nañ ne tey poor yu Dakar di ngeen coow li fa nekk. li fi am mooy da ngay gis ay fanweeri camion yu rang ku ci ne bëgg a jël benn conteneur nit ñu bari daje coow li bari jël ay place loolu nag benn autorail dong mën na koo jël kon xam ngeen ne. otoraay moom lu ci nit def rek jar na ko. ba tax na sama Ndiaye di si yokk ne tey jii suñu nguur yi war nañu gën a dooleel wàllub saxaar. ci àddina bi nga wër di nga gis ne. lii technologie. xarale yi di yokk di gën a jëm kanam yëpp yàqul. li nga xam ne moom mooy utum liggéey kon otoraay moom mënuñoo fexe ba du indi koom-koom téeméeri at bi prytanée militaire bu Saint-Louis am ren tax nag ñaareelu conférence bi ñu tànn Thiès wax nag wàllub saxaar tàmbale ko Thiès dafa jaado bu ñu sukkandikoo ki jiite amicale des anciens enfants de troupe bu prytanée militaire Saliou Momar Diagne parce que da ngay nekk xale bu ndaw ex si prytanée nga gis sa moroom boo xam ne Côte d'Ivoire la jóge nga gis sa beneen morom boo xam Niger la jóge nga gis sa morom boo xam ne Mali la jóge donc vision boobu yéen doo leen gis frontière doo leen gis nationalité yéen Afrique ngeen di gis donc raay aussi dafa nekk loo xam ne day yokk koom day yokk ay dem ak dëkk bi jaxasoo bi parce que tey raay bi du jógee Sénégal dem Mali jóge Mali dem Niger joge Mali dem Côte d'Ivoire jóge Côte d'Ivoire dem Cameroun dem feneen ak feneen day tax nit ñi dañuy gën a jaxasoo déplacement yi day gën a yomb. Oumar Bababa moom it prytanée militaire la génnee xam ma màcc si wàllub saxaar jàpp na ne kenn du naatable ngën a li nga xam ne système ferroviaire moom la am waaye it xarañte bi nga xam ne doomu sénégalais ak africain yi moom la ñu am ba tax na sax mi ngi gën a ñaax suñu nguur yi ñu gën a xoolaat seen taxawaay si kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab yi dara leen ëppalewul sa jàpp nañ ne bu ñu jëlee seen fit ak seen fulla ak fayda mën nañu soqali ñi nga xam ne moom mooy continent africain bañ a xaarati lu bare si ñi nga xam ne ñoom ñooy expertise bi bàyyi ko bitim réew Babacar Ndaw Thiès Sud FM Euh, jërëjëf Babacar Ndaw amul benn réew boo xamee ne si mën naa soqaliku sans pour autant mu daal di am li nga xam ne sii moo nekk yoonu saxaar loolu day mooy gis-gisu directeur général des grands trains du Sénégal di maam Samba Ndiaye ni jot na sëkk nag Sénégal waaye itam Afrique ci boppam ñu daal di baral bu baax te yokk li nga xam ne si moo nekk seen góora euh, bi ñu doon def ci raay bi su ko defee intégration africaine mën a nekk loo xamee ne si kat lu ñu jëmmal lay doon 98 point 5 kàddu gi di bàyyikoo ci ndakaaru dañu dugg ci wàllu wér-gi-yaram ak weer wi nga xam ne si moom lañ tuddee octobre rose ñu jagleel ko cancer bi nga xam ne si mooy dal weenu jigéen ñi njiitum réew mi président de la république Macky Sall daal di woote ci dimanche bi ci cadre octobre rose daal ni nag nañ ci daal di waxtaan waxtaan woo xamee ne si wu ubbeeku lay doon ci cancer du sein jàppale ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk malaat yi laata ñuy taxaw nag di sensibiliser bu baax a baax nit ñi ci wàllu fexe bay saytu sa yaram xam fan nga ci toll waaye itam ak gëstu bi nga xam ne si nañ ko def ngir daal di am ay saafara yoo xamee ne si yu baax lay doon loolu de njiitum réew mi mi ngi ko bind daanaka ci benn tweet bum mu publier dimanche bi ci réseau X bi nga xam ne si moo nekk ancien Twitter euh, président de la République di invité nag ñëpp ñi nga xam ne si ñoom ñoo fi nekk euh, jéego yi nga xam ne si ñu ngi koy def ñu bañ ko yemale ci benn weer waaye nag jagal ko daanaka atum lëmm ak solidarité bi ñuy def su ko defee ñu mën a sauver ay bakkan waxtaan yu baree bari waaye tam mën a seral ñi nga xamee ne si dañu nekk ak seen i mettit ñu daal leen di indil tawféex ki di président la république nee na gouvernement bu Sénégal day joona loxoom ci lu mel noonu te nag tax na daanaka mu daal di fexe ba radiothérapie nekk lu disponible am na sax ñeenti appareil yoo xamee ne si installé nañ ko ci bërëbu fajukaayu public yi nga xam ne si nekk na ci réew mi te benn bi mi ngi nekk ci hôpital Cheikhul Khadim ba nekk ca Touba ci xeex jàngoro jooju naan cancer Sénégal di yëkkati kàddoom jagleel ko nguuru Sénégal ngir kat ñu daal di fexe ba gratuité am maanaam kenn du fay dërëm ci prise en charge yu malade yi waaye itam fexe tam ba yëkkati plateau technique bi nga xam ne si moo nekk ci suñum réew association bi di saxalaat kàddu yooyu waaye itam di woote daanaka ñu gaaw a gaaw liggéey bi nga xam ne si euh, moom la ñuy def ci centre de cancérologie bi nga xam ne si nekk na ci jam ñaajo ndax nekk na loo xam ne malade soxla nañ ko lool membre yi ci tey jii ci suba la ñu def li naan benn marche rose maanaam dox boo xam ne ñoom ñëpp day dañuy sol rose pour sensibiliser bu baax a baax ci li nga xam ne si moom moo nekk euh, cancer du sein waaye itam lancé campagne bi nga xam ne moo nekk octobre rose Mame Diarra Guèye moo nekk présidente bu association bi ñu déglu ko ci micro Babacar Samb. cancer du sein dafa nekk cancer boo xam ne c'est le premier cancer au monde Sénégal cancer ween ak cancer u kanam buru kanam bu tudd burukaayu jigéen moo sonal ñu tey nag dañ doon def marche rose tuddee ko doxu yeete si cancer u mu nekk doxi doxantu ci cancer u ween ak cancer u kanam bu tutu njurukaay ndax xam nga doxu tàggat yaxam si liy faj la bokk dañuy waxtaan ak euh, population bi ne leen dox bii ngeen dox dox bu am solo la ndax da dafay nekk dox boo xam ne dafay tax feebar yu bari bu ko ma di def yu feebar yu bari néew ma du la dal de wante bu ñëwee tamit du la sonal gratuité des soins gratuité de la prise en charge des cancers féminins loolu la ñuy ñaan nguur gi ndax loolu rek moo mën a tax jigéen ñi ñemee faju ji ngay gis ku ñëw ñu ne ko demal defi échographie quarante mille mu daw ndax du ko am wala bu débrouillé ba def ko mu ñëw ñu ne ko defi biopsie ak scanner ñaar yëpp boo ko boolee muy deux cent mille si koo xam ne dépense lay war de wut xam nga loolu metti torop jigéen ñi sonn nañu docteur yi tubar fakal la macha allah mais problème bi ñu am tey lu mel ni radiothérapie bi nekk hôpital dalal jàmm ci paan la dëkk fan yi dafa paanoon du toog trois mois yoo jooytu nañ ko dañ leen ñaanoon ne leen nañu ubbi benn central électrique ci biir hôpital bi ndax hôpital Dalal Jàmm dafa jege géej corrosion marine bi dina si am dina si impacté courant bi qualité géej waaye dafa rëy bu bëggee jox hôpital bu day ni Dalal Jàmm courant jox population boobu yëpp courant coupure yeeg yooyu yëpp dafay impacter si machine yi humidité bi yooyu yëpp dafay impacter donc vraiment dañuy ñaan suñu état bi vraiment centre de cancérologie de Diamniadio bi ñu commencé woon ñu gaawal ko yeggale ko pour soulager les malades du cancer ndax malades na sonn nañu na nañu ba sa kanamu yàlla Euh, Mame Diarra Gueye moo nekk présidente association ci nga xam ne si ñoo amee cancer du sein euh, ci Sénégal ci xibaaru bitim réew ci Mali ancien premier ministre bi docteur Boubou Cissé moom day dafa def daanaka benn génn am ay kàddu yu mu génne ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu weesu euh, ci sorteem boobu nga xam ne si mën nañ ko méngale ak ab manifeste maanaam ci lu mu bëggoon wax mi ngi woo de ñi nga xamee ne si ñoo nekk njiitu Mali ñu daal di indi li tudd concertation nationale ne kenn ku nekk di nga yàbbi ci su ko defee ñu xam fan la méttit yi nekk ñu mën koo saafara kàddu yooyu nag mi ngi ko wax gannaaw boo xamee ne si ca Mali dañoo reporter élection générale yi nga xam ne si autorité malienne yi ñoom ñoo jël dogal boobu ñoo xamee ne si jege nañu lool pouvoir bi ñoom kat ñi ngi wax ne génn boobu daanaka lan moo ko waral ndaxte kat kooku nga xamee ne si moom moo nekk homme politique boobu li olof di wax moo ci nekk bala nga ne naam ne fa moom ci boppam nekkul biir Mali kon nag lu leen wutale ay solution ci biir Mali ci kanamee ngeen déglu euh, ci kàllaama nasaraan suñu nattangoo ba fa nekk di Sori Ibrahima Maïga ñu dikk ak yéen ci xibaar yi nga xamee ne si moom moo nekk yu tàggat yaram ak championnat du monde des malentendants euh, réewum Sénégal yegg ci demi-finale équipe bu Sénégal bu football bi nga xamee ne si kat ñi nga xamee ne si dañu tëxtalu ñoom ñoo ci nekk qualifié na dimanche bi ci demi-finale yu championnat euh, du monde bi ñoom nag ñi ngi dóor États-Unis d'Amérique un but à zéro championnat du monde bi nag ñi ngi koy joué jamono yi ñu tollu ca Malaisie njiitum réew mi sax yëkkati na ay kàddu naan leen mbarawàcc gaynde njaay euh, ci seen victoire boobu nga xam ne si am nañ ko euh, ci ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk États-Unis euh, d'Amérique loolu njiitum réew mi ngi ko fësal ci kontam bi nee na nag nekk na loo xamee ne si lu historique lu histoire mën na daal di jàpp la nation bi nekk na koo xamee ne si mi ngi nekk ci seen gannaaw te leen kañ fu ngeen toll rafetlu bu baax a baax li ngeen def mi ngi leen di ñaanal nag daal ne suñuy ñaan na leen topp su ko defee ñu daal di dem ba mbir mi ji jeex maanaam def ko euh, dem ba jeex ba tey ci wàllu xibaar yi sous commission régionale des arbitres ba doon am ca Mbour dafa am benn arbitre boo xamee ne si dafa ñàkk bakkanam moom daal daanaka biñ doon daw bay def dixième tour test physique yi ci la daal di yegg suuf daal di daanu loolu sax tax na moom moom nga xam ne si moo gaañu di Léopold Diouf test yi nga xam ne si ñi ko jàppoon ci ndakaaru ci dimanche bi ñu daal koy toxal ba jëmmi jamono mbokk loolu moo nekkoon xibaar yi nga xam ne si moo fi bàyyeekoo jaa ngeen jëf ci déglu bi ñu dikk fàttali leen bopp yi soog a tàggoog yi Euh, door nañ ko sànq ci ancienne piste bu aéroport garage ak atelier ya fa nekkoon way takk der yi dem jële leen fa mu nekk nag mbettaange ci ñoom ñoom ci seen bopp nag daal ne waxuma la mbettaange bi sax ni mu leen naqaree waaye nag ji nga xam ne si moom lañ leen jaay ba jële leen fa nekk na loo xamee ne leen gën a metti la amatuñu nag benn xalaat lu dul xam nañ ni daal mbirum mbëkk mi moom dana fi gën a yokk te ak caay-caay aku sàmba boo itam dana gën a law ci fi nga xam ne moo nekk ci réew mi campagne parrainage ñu koy waajalee élection présidentielle présidentielle bu 25 février 2024 lu mat daanaka fukki candidat day direction générale des élections nangu la leen waaye nag ki ñu bañal bosam day moo di Ousmane Sonko euh, tax na nag Alioune bu Africa Jom Center daal Sénégal jot na sëkk ñu posé problème mu éligibilité ndaxte kat lu mel noonu defe na ni conseil constitutionnel dong moom moo am droit yey ci yàbbi looloo tax nag Alioune Tine ñi nga xamee ne si ñoo nekk waa administration day tëdde njaaxaanaay moo ñi ñu seddu tam conseil des ministres décentralisé bañ jagleloon diwaanu Sédhiou lu yeex a yeex a yeex seddu nañ ko ci daanaka engagement yi ñu fay jëloon loolu nag nekkul lu neex coalition benn Bokk Yaakaar ak parti mu àndal ci mouvance présidentielle bi ñu yëkkati seen kàddu di wax njiitum réew mi day ne leen ci jàppale nu mu gën a gaawee ngir projet yooyu ñu tànnoon ñu daal koy def mu daal di jeex ñoom nag ànd nañu sax ci tànn bi nga xamee ni si moom la ñu tànn Amadou Ba te danañ ko gunge ngir mu daal di am ndam avenue Charles ñu daal koy dippee léegi président Macky Sall conseil municipal bi moo jël dogal boobu gannaaw boo xamee ne si nag ci juróom-ñett fukki conseillers juróom-benn fukki ak juróom ñoom ci seen bopp nangu nañu mbir noonu moo ne de ci ay bés bi ñu génn gis nañ ay conseillers yoo xamee ne si dañoo bañan ba futtu ci loolu mbokk yi li moo nekkoon xibaar yi jaageen jëf ci déglu bi jaageen jëf ci ko rek ngeen fas ak Sud FM seen rajo ñuy sant ak gërëm Papa Abdoulaye Dieye mi féete woon ci wàllu xarale gi ñaanal leen ngoonu jàmm ak salaam ak programme yu Sud FM seen rajo 18h bu jotee Aïssatou Gueye dina fi dikk ak yéen ci xibaar yi ci kàllaama nasaraan jaageen jëf